tout côté yow la ca Paysane sa yaay da laa ñaanal. yaa bëgg maam Ndiaye Savon. insister yow la ca Mame Salla la. insister may ma Mame Salla la. insister Mame Salla la nga mën a la da ngay dem. insister yow la ca Mame Salla. insister. maxal fay laa lu ne laam lu ne ay waay jigéen balaa dama yàq yëf yi xale jigéen ok ay waay jigéen waxaale. tim maxal ba pare ku ne di tàcc ñu taxaw pour ñu ba. waaw léegi loolu. non non nañu yàq rek ñëpp. waaw wax si loolu laa xale bu ñu tàcc la ñu ñëpp. non non waaw fu na indi na indi nu mu tudd fu na indi palaat na indi ma daal di séddale benn yoon ci cin bi laa koy séddale dama ko yàq. waaye Sall wax dëgg yàq de Sall. dama fayal ma gaz rek fayal ma gaz rek teel ma gaz rek. mais ça lii ci baxal. lii ci baxal. palaat yee. jant du am naaj du am. damaa ñëw nag. waaw ñaar fukki junni jëlal. ñaar fukki junni sóor bi wadd. jox ko. maa koy nangu. Zal kay nangu ko. ñaar fukki junni. fukki junni ci Cobra sama rakk ji nga xamante ni ajaratu Asi Jóob la yaayam tudd sama rakk ji xam ni toogoo naan su ma doon góor boo doon góor doo faj gàcce ndax ñaari loo koy takk tubay waaye mooy takk sër nga na boo liggéey bëri jom am personnalité ci digg réew mi nga ne yal na yàlla doon di jàmmam deux cent cinquante mille juróom fukki junni eh trois cent mille juróom benn fukki junni trois cent cinquante mille juróom ñetti fukki junni quatre cent mille quatre cent mille. mami yàlla sànq ñu ne. nga jënd ci ndox mu sedd. ah waaw. waaw ndox mu sedd kese. la ah. la ci jënduloo ak boisson. ndax yow macha la cat fàttali la li la war ci sa bis bi. bis bi mënu la. déedéet. man Ndiaye. ah ñu lay toog di maquillage lan ma sama waa ji tëgg na bis na mu ko bëggee woon sëñ Fall dugal ci loxoom yow ci kaw ci kanam doo tànn kenn du la yëg waaye Diallo Diéry sama rakk ji nii rek nga mën a mel boo ni melul benn tàkk ci sa kaw sëriñ Fall nga doy loo as joomay sa yaay a a baax way laaj doole yow doxal sa dox ba kenn laal sëriñ Fall loola def nii nga mel moo ko def maam Ndiaye moo tax ànd bi day neex kenn mënu ci dara yàlla def ngeen noppal leen buñ leen ko deful dinañ leen jaaxal ndax sëriñ Fallou leen boole wax amul ba tàkkul yëpp jugul lan loolu yëpp bëggoon du leen dal waaw saa ba mën def foo tax firndeel mënu ci dara danoo bokk Alaaji Fallou te deret ji benn la xam nga bu nu bokkee Alaaji Fallou deret bi day daal di doon benn keroog bi maa ngi xuusee tubarkalla fekk ci sama xaalis bi nga xam ne mami Diop mami Diallo Diallo jiri borom maam yi li maay tubaari kàlla mun naa ne ba bari jom lool nag tubarkàlla nga fay bor lool nag sama waaj tubarkàlla bu la neexoon nag empêchement yi bari na ci réew mi bu la neexoon doo wuy sax rakk ji waaye nga wuy si ko ba mu waaye nag ku la lebal kër ku ne nga koy fay. jàllu ji yi borom maam yi li maa nga ànd ak sa giwil ànd ak a délégation tubarkàlla ajot maam Ndiaye joxoon la deux cent mille nga daal di ko ñëw jox quatre cent mille mën naa ak toog ci wetam ba bëgg fi jeex Ndiaye Savon nii nga nee naa la yaay Serigne Fallou tubaarkàlla mooy yaay Faatu mooy yaay Abi la tubaarkàlla muñ dëgg la ñàkk mu ñu dëgg la fi bare ku dem ba foog moo am kon kii mooy saaxibu waaw mun raw nañu fi yaaram ci wàllu gone tey duma laaj sa diggante bu baax mais damay wax ci tolluwaay bés bi muy sa diggante sëñ Fallou sëriñ Fallou Mbamoun Euh, sëñ Fallou Mbacké xotti saa jiwu mais à chaque fois yéen a ngi tas yaakaar du teewoo ku kay daa faatu ak maam defee Dakar loolu tax man ma sëkk sama bopp ñëw wuyu si ko ndax maam dafa nekk lu gore bu baax sëñ Fallou Mbacké maam sëriñ Yuus la yow dooleel ma yenn sërifun sërifun sërifun tuuba jublu ak alasan ak doxati saa tur bi tas yaakaar du daw ko kay laa ku laa may nga géej jëm Seex Fallu Mbàkke xalila waaw timis jot na di